ñu defar ko lu fi yaaxu ñu defar ko ah ñu defar ko lu fi yaaxu ñu defar ko defar ko ah. What up guys what up guys what's up everybody Some guy <laughs> before going faster allow me to introduce myself again I go by the name of Malachon and I'm from Senegal West Africa Rio City my town <laughs> Ini gue my Pop J, Ibrahim Ndao, Mustafa Mane, Dagoud from Belgium, Abu Jallo from Russia, his elder Ismail Jallo. Digo may Amadou Dam Diagne sama série Koumba Mané namm naa you know what I'm saying Mamadou Fall sama guys. yi ah. ah, mau ya yàgg fena wàcce nii eh, tu vois xaw a sonn semua mais xam ne su ma tëddee rek mooy loolu quoi du ma amaat jot de vidéo te gën naa leen ko may quoi donc foo ma may leen ko tey li may sama dama je vais parler de Mansour Faye waaw maa ngi ci xóot bi nag

la motax tax boy bu ne leen mbëkk mi day rayé han ah, wala Europe amatul dara gaay di jóg di terewul booy di jël gaal yi di dé di dem Europe la motax lolu malgré toutes les campagnes euh, de sensibilisation boy di ko dem Europe parce que niki bokay bokay proposer dara bokay proposer dara da nga koy jox bokay bayilo dara da nga koy jox lu gën gouvernement bi bu ñu joxoon tey ji booy lu gën han ah, gouvernement bi joxon boy lu gën tey ji booy du jël gaal dem Europe c'est parce qu'ils ont failli à leur mission nit ñi lekkuñu naanuñu am nañ stress am nañ pression moo tax boo leen Europe ay dëmm fa ne dinañ lekk sax yi ñuy dem di jël ay gaal muy toj c'est la même chose moom nga yóbbuwaat ci politique bi tey jii boo nekkee fi di di Sonko gars yi koy gën a bëgg parce que yéen ñi koy diaboliser yéen a jagul yéen bu ñu proposé que yéen ay sàcc ñoo fa ne ay luubalkat ay trian ay ñoo xam ne yéen muñu seen askan moo tax loolu leen gën a diaboliser Sonko gars di gën a di saaga di gën a di Sonko parce que vous ne proposez pas mieux c'est comme l'immigration tant que les gens euh, état bi mi ngi fii ñi di am liggéey du ñu am liggéey ñi di chômeur exemple booy ne si temps boo leen mais boo ñu tiraale leen ay visa 3 millions mais boo ñu dee ci tefes gi isangil mais dañuy parce que vous ne rien de mieux loolu moo amat ci politique bi Sonko loolu nga ko jaboli jaboli yi koy ko donc euh, ngeen def ba léegi xool fi ngeen jógee rek euh, ne ngeen fi dees euh, moo koy financé terroriste la day tere màggal loolu leen koy gën a wax rek muy gën a muy gën a bëgg donc loolu affaire dof la quoi tu vois ma bëggoon ngeen nekk nit ci loolu noonu quoi beneen bu may waxee ay waay sama xut waay sama gars yi jégalu de mun may gàllal waaw mooy loolu beneen bi may wax mooy sa sa wax ji nee nga yow waa ji da la seet tu as bien précisé nag tu as été intelligent quoi parce que tu peux semer le doute tenir image am quoi nga ne gars yi da la ñaan intervention pour gisee ak monsieur le président te am na si droit quoi parce que président président ñëpp la bien vrai que li nga wax amul man fenn laa teg ne li nga wax amul ah fenn rek laa teg ne yow li nga wax amul mooy maanaam tey jii yow bu fekkee li ngay wax nii dafa nekkoon lu solide la wala lu lu garaaw mais pour lu tax génn ko bu yàgg durant élection yi parce que durant élection yi génn fi ay waxu jaay suuf ne Sonko dafa lekk ci suufu ndóoyeen yi affaire yi maaleykum salaam affaire yu yi yooyu noonu arme boobu jàllul ah génn génn ngeen fi tey ji naan ay Sonko ah euh, am na ay kii entreprise xaw ma lan Atlas ak kii Mercalès affaire yooyu te loolu tamit dama ciy wax quoi yow nee nga kon ko tué nee nga Sonko dafa am entreprise fàtte entreprise bi mais yow sa doom da jur say doom sa doom nga ëmb ko mois ngay def say doom ba ñu am mais sa doom yi parfois da ngay bëgg a kenn ndox nga juum nga bëgg a wax awa ne binta xaa nit du juum say doom wat leen nel ñu dem ba ay 20 ans te parfois da ngay bëgg oo sa oo doom bu bëgg oo Amadou nga oo kii dem loolu du dal wala yow doo juum yow yàlla nga may ñu waaye koo nga trop waaw nga laaj ngeen ko entreprise am nit nit boo ko bettee am na noo koy acculé laaj ko rek day jum ak lu mu xamoon yëpp ñi jàng alxuraan sax am na leen acculé ne leen tari leen fatiha ne ko tari ko mu jum donc loolu waxi dof la li ma lay waxaat mooy maanaam tey ji yaa ngi ne na yow tu es beau frère du président dama la say conneries ça ne se passe qu'en Afrique ñu fal ñu fal nit doomam di di di jàpp sénégalais yi wala ay nijaayam wala ay bàjjanam tey ji Macron kenn xamul kan goro Macron parce que ça ne se passe pas là-bas parce que c'est des pays civilisés fii nag c'est des pays de merde da ngay fal nit maanaam maay goro ma Macky Sall la sàcc suñu xaalis du ko neex def te il n'a pas honte génn télé bi di ko wax loolu mooy problème bi quoi man su ma su ma deer naqara ma lay quoi tu vois maa suuf yaa oto bi romb nii yeneen oto kalandoo bi romb nii di saxaar noonu nga mel yeneen kenn kenn def si zéro kilomètre vous êtes usé ay plus de huit ans ngeen def furat bi rek mën leen fi bàyyi xam oto bi warul daw mais ni koy bàyyi mu daw parce que corruption moo fi ne ba pare dépense lay daw mais ay yow maa suuf comme oto bi nga mel ah doolu amoo visite technique def nga plus de huit ans foo romb di nga rey nii noonu nga mel quoi donc bàyyi nga def quoi eh, eh, ah, da nga war a sax rus tu vois te ma la xoolee dafa naan ne sa booy nga mais pas nga léegi nga dee ah? dee ki am na àlaxira yéen ñu fa nar a tardel àlaxira yéen kese ñu fa nar a parce que sàcc xaalisu bi nekk fii nii dërëm bu nañu war rek loolu ay ay yow ay Mamour Diallo ay Mame Boye Diaw ay ay Mbaye

dama noonu dama def vidéo sax mais dama seetaan waa ji rek xam nga rek xol bi jóg quoi di ko may sama gars yi ñoom Badou Diagne comme may Maodo maçon maçon yaa ngi liggéey ñu ngi nii dañuy liggéey ba dee leen ay kenn jëndatu wàcceetul ay tonne ciment ay mbuus cent franc la ñuy jënd defaat nii dawloo maçon yi xuluwaante parce que yéen kese la dëkk bi yéen a ko yàq ay jakarta mi ngi nii ñëppay dawal ay jakarta ñi di jaay café Touba ah, ñi amu leen saara sukaa sama gars yi doo leen ko sukaa sama xol day jeex nga jox lu ñu jël si ma quoi bëgg naa la yéen ñëpp ah bëgg naa la yéen ñëpp te ngeen abonné ah maa ngi ma la coono moo koy tasaare tey nag maa fon gis sa bët ni mu xonqee voilà ñun du fi nekk rek di wax quoi dañuy liggéey ba pare soog a ñëw fii waa Pastef Sonko ñii ñi ngi bay ñi ngi def ñun ñun ñu ñun dundeewuñu Macky Sall mooy sunu goro lu facile loolu noonu tigoo taxawaay zéro ku ñëw nga ànd ak moom ñun dundeewuñu loolu dañuy liggéey dañuy bay ñi bay ñi nekk ñi nekk maçon mais goro Macky loolu moo la may alal loolu yéen da nga ko war a wax Sall foo ko jëlee nga may goro Macky Sall isolation fu ne Oh bu la la neex nga bañ a dem mais su Sonko su Sonko su Sonko faloo di nga di nga uti say fétiche ak yooyu sama gars yi maa ngi kii waay maa ngi wax ay absurdité defar ko eh. ñu lu fi yaaxu ñu defar ko ah. ñu